Sargar ñu ngi leen di bu baax di la siyaar di la sa frère. waaw maa leen di siyaar bu baax di leen masawu. Mhm. leen bokk ñun ñëpp parce que lu jóg rek yéen am ngeen ci wàll. Mhm. te ñoo ngi rafet lu seen liggéey bu baax a baax a baax. Mhm. waaw Moussa Dioum nijaay la ci man ñoo bokkandoo suñu carrière di ko def moo ma jëlee Medina kër ñoom mbay Diouf andi ma fii depuis 2002 ñun ñaar ñu nekk ñu formé suñu écurie xam bokk di bokk di lekk trop. Euh, bi nga xamante ni euh, waaw mooy nit koo xam ne ku mën a muñ la ku oyof la du ne da koy dégg mais teew fi mu toog du du du réagir mm-hmm. ku mën a muñ la lu ne dégg na ko mm-hmm. mais fi mu toog lay toog mais ku am jom la Eh, ku bëgg waajuram la ku bëgg yaayam la aussi waaye lépp ci àddina mën nga koo teg ci ko mu noog mu toog su mu toog nii feebar bi sax man dafa bett parce que ñu naa fi dimanche ñu toog maam doon waxtaan moo ma takkali soxla hmm. waaw eh, mu amoon absence boo xamante ne sénégalais gëjoon nañ ko gis ci làmb ji amoon feebar bu tëddaale wala wala feebar moom dan naa ay feebar feebar la waaye man li ma gis ci moom hmm. mooy sama mbër sama tànk doon métti ñëw naa ba gis toog ak moom gisaatuma ko bi ma ñëwaatee mu changé lool ma ne ko am mbir nu mu demee nii mu ne mënoo dara parce que li nekk ci moom dëgg-dëgg pour mu wax la ko dafay jafe ci moom parce que borom jom la waaw loolu moo nekkoon parce que ñëpp gisoo gisoo ñëpp dañuy xoolante nii rek parce que xam nañ ne borom jom dem na parce que du wax kenn dara lu mu métti métti la wax dara ci àddina. tant woon wala métti bu doon man daal dama won na ma ne taab la. ma gis ko ma ñëw fi seet si ko ne ko ndax yaa ngi tane mu ne ma waaw maa ngi tane ma delluwaat sama liggéey parce que man jas laa nekk falaa jóg tey ji ay trois heures matin ñëw fii mais sama jabar fii la fanaan parce que ñëw moo ko yëg sax woo ma wax ma ko ma ñëw waaye nag feebar bi moom taxutoon nit ñuy wax feebar ak feebar nii déedéet benn table woon moo indi woon problème mu feebar bi ñuy wax bi mu ñëwee foofu la jaare xaw ma nag lan la hôpital waxagun wala déet waaye en tout cas ku ko gisoon moom xam na ne kii am na tawat. Mm-hmm. waaw. Moussa Dioum bi nga xamoon ak tey bi nga xam te moom moo dem ban jàngat ci def. jàngat bi ma ci mooy delloo naa sama bopp lépp ci yàlla ba pare parce que tey jii koo doon àndal muy lekk kan naan ngeen ànd di dóor a ko jóg mu lay xelal ci lu nekk ngeen ànd ci lu nekk. parce que fu mu ma jëlee dafa rëy quoi parce que dafa dama dafa métteen sama côté ma nekkoon ci benn écurie ñun ñaar ñu nekk fu mu métti sama côté trop ñu ànd mun ne ma ñëwoon parcelle ñu former suñu écurie bopp loolu moo mën di fii tey jii ñun ñaar la woon kese kese daaw ñu am keneen ku ñu contacter sax dañ ko daan uti ci marché yi pour ñu ñëw am ku ñu contacter mais teewul dafa jàpp joxam rek kun wax mun a garaaw des na ko lijjanti ba nii loolu dal na li moom ma gën a marqué ci moom mooy tooñ gi bu ma daan tooñ moom ma gën a marqué ci moom parce que man rek la yaboon waaw man kese kese waaw man kese kese ci la sañ wax loo xam ne nii bu ko waxee dara du ko ci fekk parce que ànd bi ànd la dafa yàgg waaw. ndax ci benn. waa làmb keneen ku mën doon ñëw taxaw ko parce que nekkutoon loo xam ne nii xëñ na lu gisoon na lu koy lor la wala déedéet parce que taab la ma woon man du ma fi nekk sax parce que damay dem liggéey par quinze jours mu wàcc mais chaque jour dama daan déggante moom sama sama numéro bii sama téléphone bii numéro moo ci mujjee nekk moom lay woo chaque jour ñu waxtaan mbër yaa ngi tane mu a waa maa ngi tane après ma continuer parce que yaakaar naa ne du ma nëbb dara man du ma ko nëbb voilà foofu lañ tolloon. mu mel ne ñi siiw ñi en général bu ñu xawee tawat rek dañuy yëgal li nga xamante ne moo di seen jàngoro ci presse bi est que lu tax Moussa deful li ni mel. non kii moom wax dëgg yàlla Moussa moom pour mu amoon jotu presse sax problème la parce que moom du yëgle ci yu mel noonu dara. feebar ñii dëkk ci koñ bi te bu leen waxal Moussa bi dafa feebar danaa la parce que gisuñu ko ñii dëkk ci koñ bi yëpp amul kenn ko gis ñii ñii ñi mu foo ndoolo ngi fii. ñun màggandoo la ngi fi yeneen mbër yaa ngi fi ñëpp a ngi fi mais kenn mënu la wax ne la Moussa Dioum ndax dafa feebar ndax la loolu la nu may laaj suuf ba léegi ndax kañ la feebar rek parce que musu gis nu ko sonalul kenn ci dara mhm. waaw bi nga waxtaanee ak moom mu ne la dama am taab. est-ce que aussi tamit amoon na lu mu fajoo parce que ku ne xam ne ne lamb <laughs> la doon def. Euh. te toog na lu yàgg bëriwut. Euh. mën naa ne sax génnoon na ci définitivement. Euh. kon donc est-ce que amoon na lu mu fajoo parce que en général boo nekkee ci lamb ji te bëriwoo rek pour nga am loo fajoo hmm. day xaw jafe te ñi la daan jàppale boo feeñul à 100 pour cent dootuñ la jàppale dañuy teg seen tànk. Hmm. est-ce que aussi tamit loolu amuloon jafe-jafe pour faj. non non non parce que te jii bu fekkoon ne. bu fekkoon vingt millions la ñuy wax ne nañ ko génn faj ko léegi mu génne vingt millions ci poosam avant daraa xew mu faju du xaalis moo ko moo taxoon déedéet ci ci ci association benn boo xam ne di bu mu ci mës won ne ma ci lii laa bokk amul moom nekkutoon ci ci yooyu parce que xëñ na ci làmb lañ ko xam mais da doon liggéey ñu doon liggéey toogul làmb rek du métier quoi parce que boo màggatee daanaka mu jeex waaw. ñu bu baax waaw euh, di la jox nga dernier kàddu rek di ko jaar aussi euh, le ministre des sports ak euh, le président CNG yan kàddu nga leen di jaale rek ak sénégalais. waaw waaw man ñoo ngi leen ñoo ngi bokk métit mhm. buñ bokk ñun ñëpp ak yéen presse bi fi nekk. Mhm. ak yaayam mag ñun ñi fi nekk ñëpp ak ministre Matar Ba ak ñi fi nekkoon ñëpp ñi daan ñëw ñëpp. que ku nekk tey jii xam na ko parce que man avant may nooy sax ñu jógee Amérique ñoo ma doon woo di ma laaj bi ma laajee man dama gëlëm parce que dama ne leen xaar parce que buñ ma wooyee waat ma rek laa xam ne loo na dama mujj ne am na man gisaguma mais ma woote ci kër ñu xam ne am na mais maa ngi maa maa ngi koy jaal ñëpp di métti suñ métti nag ñun ñëpp ko bokk. parce que yéen it am ngeen ci wàll ñeneen am nañ ci wàll ñun daal ñal na ko yàlla yërëm te yeexan xare ko àjjana wax dëgg yàlla. waaw sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax yéen it. waaw kay jërëjëf. acca ba tey mbokk ñu ngi leen nuyu leen siyaar ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam te mooy Belende tey ñu ngi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi fi nga xam te mooy mu ngi koy bàyyi mu nuyu nuyu si Belende ñu ngi lay nuyu di leen siyaar baax waaw ah, auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kulli nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu ñam dugg bu ne di nga ñam dee bon ñun suñ teewaay fii nag lenn rek la mooy suñu mbokk suñu xarit suñu am di jàmm suñu grand ku ñuy wax saa Dioum mu nekkoon grand goo xamante ni grand bu baaxoon si ñun la ndax ñun ay témoins rek lañ mën a def si moom yoo xamante ni loolu lañ ko xamal mu nekkoon grand bu baax suñu ñun grand goo xamante ni tam aussi fu mu ñu fekk rek dinañ ñu boole si boppam te lu baax rek la ñuy booy def leen ni def leen ni soo leen defee nii di ngeen am lii kon tey jii suñu toogee ñu ne xam nga génn naa àdduna ñun duñ mën a toog duñ def leen du dul sol suñ dàll ñëw teewee ko dañ koy ñaanal yàlla nag fu mu nekk gënal ko fu mu jóge yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi ndax lii tiis la te tiis bu metti la suñu deewee na ndaw nag ante dañuy ñaan yàlla rek yàlla ak weeru koor bi mu génn nii mu fekk ko àjjana firdaws lan moo la gën a marqué ci ki nga xam te mooy Moussa Dioum lu ma gën a marqué ci moom mooy oyofam ak yaatoom ak képp ku mu gis ku nekk da lay boole ci bopp man Moussa fu ma daj moom dina ma nuyu kottu ma taxaw waxtaan man di gis naa li ngay def defal nii defal nii defal nii yombul parce que wax rek yombul am na ñoo xam suñu gisee nit tey jii nii mënuñ taxaw ak moom te moom loolu yàlla may na ko su gisee nit dina taxaw moom waxtaan ak moom ba pare xamal ko loo xamante ni lu baax la te lu koy avancé loola kon aussi tamit loolu bokk na si lu ëpp solo si muy conseil te yàlla da ko jagleel loolu du man kese nag mbiru parcelle yëpp nag ku mu si dajee ku ne wala ku si am bis ku ne su ñëwul sax laa dina fexe ba déggante wala ba gis sa ne la lii moo ma tere ñu kon loolu rek dafa rëy si te boo aussi tamit xam nga metti na daal. Mhm. Mhm. waaw metti na trop dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana firdaws te Moussa lu jege lu jege dem na daal lu ñu jege dem na yàlla na ko yàlla suuf seet di si kawam yàlla xare ko àjjana man loolu laa lu ma si wax quoi. bokkoon ak moom parcelle ñëpp mën nañ ni tey seen début carrière lépp Moussa fekkee na ko jàpp na ci euh, naka ngeen dundee ak moom ci carrière bi waaw ñun ba ñuy dugg ci làmb mu ngi fekk moom mu ngi mu ngi kii quoi. mu ngi waaj a génn waaj génn. kon mun nañu wax musaa ñun papa la surtout te ñun ñun booy ñu ay booy ndaw lañ ñun tey seen tànk lañ jaar loolu laa la doon wax sànq moom fu mu ñu gis fu nekk rek dinañuy wax booy def leen li def leen di def te loolu bokk na si li may gën a marqué dëgg la joxe neex na trop ante conseil moo daa joxe te musaa dafa mun loolu musaa dafa mun loolu moom fu mu la fekk mooy ci làmb dina fexe ba feeñu. même soo leen dajee stade dana fexe ba feeñu la kott la na ah yaa diw combat la góorgóorlu gis naa ne loolu rek dafa rëy quoi kon dañ koy ñaanal yàlla rek ñaanal yàlla rek lañ ko mën lañ ko a def bàyyi ko yàlla ñaanal ko yàlla suuf sedd si koom quoi. Mhm. yan kàddu mujjee déggante ki ne moom mooy Moussa Yoff ba biñ la woowee rek waaw man ba ma yëgee ni Moussa dafa ñàkk bakkanam guddi gi laa ko yëg guddi laa ko yëg parce que ba ma koy yëg si guddi gi man gëwuma ko laa gis gars man gëwuma ko ma woo Aliou Dramé Aliou Dramé xamal ma nu dëgg la parce que wàllu dee dafa doon loo xamante ne tey jii nii xam nga ko war a gëstu gëstuwaat ko mhm. ba ma koy waaw voilà ma yëg ko ba ma koy yëgee ma laajaat di laajtee gëstu ñu may wax ni dëgg la man boog gëwuma ko woon quoi ba muy mujj tamit waxag moom estaat la woon ba muy mujj wax ak moom estaat la woon combat zëm bi lañ mujjee gisante maak moom muy ndimbër may ndimbër lu ma njëkk dénk mu ne ma booy fi nga ko téye foofu la góorgóorlu rek da bokk si làmb gis naa li ngay def kenn mënu la génne si làmb da bokk si làmb wax ma lu bëri loo xamante tey jii nii maa ngi koy jëfee te maa ngi koy doxe waaw te Moussa nekkoon na nit ku gëm boppam nit koo xamante ne bañkat la waaw yal na ko yàlla xare àjjana ko